wala seere nga ci di wax. waaw incha allah mi gën miinu ma ko. Mhm. Cheikh Sidi mii moo am lu mu gis ci internet mhm. fexe ba woon ma mhm. ma gis muy safu suufu oto. di def glace ba mu fees. dem ba ca sañcaan ya. fu mu gën a soree nga xam ne courant amul fa. nañ tumuranke. mu def glace bi ngeen ko jox ngir yàlla. benn jeex. jëf ji rëy ci man mën na see fexeel ba ma xam kii ku mu. ko. li mu def ñëpp la ko defal mm-hmm. ma bëgg nag waxuma la sax ku ku woor mm-hmm. waaye am picc sax mm-hmm. nga fexe ba mu naan wala lépp lu am res salaam salaam nee na maa la war fekk maa la war lu di la ram nit bu sax dama ko jënd da yéen tamit nee na lépp lu am res rek day mar ku ko jox ndox rek maa la war lu ëllëg am ram waxuma laa nag tubaab jii nga xam ne moom la sëñ bi gën a bëgg fépp jëmam gi nefi jabootam gi nefi ñëpp gàddaay bàyyi seen kër maam yi ak seen kër bàyyi ñëw sëñ bi ñee tumuranke lool xamuñ fi ñu jënd glace ak koor gii nga dem ba ci ñoom yëg leen dem ba ñoom leen dimbale loolu cant gi mu ngi ñi moo tax dama bëgg nga dimbale ma yooyu defal ma ko ci lu muy tuuti tuuti dugal moo ci galaas te fasaale naa ci murid ko bëggoon te ko mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. dégg na lool kontaan na lool di nga ànd ak suñu jëwriñ nag sëñ Afe Jaw mi ak euh, sëñ Fallou Mbaye mi ñoom nag euh, ñoo seq liggéey bi euh, ñu daal li ñu dàkk muy bëggug sëñ bi dëkk daal si la nekk fa suñu yéene def dara lu nekk ci li nga xam mooy ndigal sëñ mhm. te li ñuy ñaan di ko sax saa suñu xëyee suñu bëgg mhm. ak suñu yaakaar sëñ Touba mhm. di gën di yokk ñun soxlawuñ dara bëgguñ dara lu sëñ Touba doy nañu sëkk rek ñii ngeen ko defe rek sëñ bi na la woon a kenn ku ne maa ngi lay tëgg la ngay def mën koy gis yéen ñii nag lii moom bu ko sëñ bi gisee dana mhm. la wóor dana muñ te dana bëgg ngeen fekk taalibe ci àll ba tuumuranke leen fekk leen jox glace jëme leen kanam te xam ne loolu mooy bëgg si waaw sama cant gii nag cant si ñun taxa fëgg si xam naa bu وسبع ذنب بعد أن تولد من وجملة الأخوان من الخارج من الدين وفي الدين والأجال وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم على محمد المسلمين وتصل بالصلاة والسلام عليك